doon gàttandu sunu ndongo lii nga xam ni mooy Cheikh Mouhamadul Mahi Touré yàlla dogal mu demoon concours fële ci Tanzanie jël fa deuxième place ak note yoo xam ni note yu kawe la. di gërëm sëriñam bi nga xam ni mooy Alxaaji Touré nga xam ni moo ko jàngal Alquran moo ko gunge woon fële ci Tanzanie ba yàlla may ko ndam alxaaji tam ñu ngi koy gërëm di ko sant. di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mahi ndam lii ndamal Sénégal yëpp la waaye ndamal islam yëpp la ndamal ahlu quran yëpp la di ñaan borom bi yeneeni ndam yàlla na ko yàlla mayaat ci yeneen concours yoo xamante ne mi ngi ci kanamam. di wax na wax dëgg yàlla ndab lii ndabal euh, Sénégal la. Euh, di ndabal ndabal la. waaye euh, ndabal sëñ daara yëpp la. concours mu ngi doon amee Tanzanie Daaru Salaam mooy capitalu Tanzanie. waa concours bi li si bokkoon si réew mën na vingt six pays si Afrique ak euh, yeneen réew yoo xamante ni ay Europe la Asie ak Amérique yoo xamante bokkoon nañ si lépp lépp daal soo ko boolee mën na fanweeri réew. moom mu jël deuxième am quatre vingt dix neuf tisaawa tisaana daraja moom la am. égyptien ba xam ne moo si jiitu am quatre vingt dix neuf moom la ko jiitoo. concours bu saturé loolu wax dëgg yàlla parce que ñam si dajee ñëpp. ay champion leen yàgg nañ dem si concours ay mag leen am na ñoo xam ne sax mën jur am na ñoo xam ne mën nañ kaa jur wax dëgg bu mu demee foofu te yàlla boole yu ci sabab bi bu fekkoon ni indiwul woon dara ñun ñëpp dañu am lu ñu lu ñu neexul mais tey macha allah te mbooloo bu mu nekkoon di jàng ñi fekke woon ku gis stade boobule dañu ne lu tolloo ci cinquante mille personnes jàkkaarloo ak xale bu tolloo ni jàngi alquran bu mel noonu te mu daje woon foofu ay mbokk yu bëre ci réew arab yi ci réew tubaab yi ci réew afrique yu bëree bëri ba yàlla borom bi may ko lii eh, damay ndokkel seriñam bi ko jàngal waaye ndokkel ñaari way juróom ñi fi taxaw waaye ndokkel mbooleem jullit ci Sénégal ndokkel mbooleem jullit ci àdduna bi yëpp ci ñi nga xam ne ñoo sabablu ci njàngale mi ci formation bi boo mu mun a am lu mu am fii ci Sénégal mun a dem Tanzanie tamit amee ko foofu ñoom ñëpp ñu ngi leen di ndokkel القران الكريم كونتانتي اوسي سي سينيغال دا وخ دغ يالا بوكو غيسه غيس مبوك يي خامني كوتي نيك ريك داغي ييغني لي لا كو موم كون ناك نيغي فيليسيتي نييب نيغي ندوكل نييب ني نيان يالا بروم بي سبحانه وتعالى نوما امي لي يال نكو يالا بروم بي مايات لو راو لي با يالا بوله كو تي بروم خام خام ني غينا خام القران تي ادون بي ييب ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون